lu tax muy saaga Diomaye lu tax muy saaga suñu gendarme yi lu tax muy saaga suñu force de défense ah ñun dañoo yaakaar ne Moussa Fall fi ne gendarme Macky Sall la fi ne déedéet léegi gendarme Macky Sall amu fi gendarmerie état bu Sénégal gendarmerie républicaine moo fi am ñii Diomaye day dem bàyyi fi ñii ko dem bàyyi fi ñii kon yow boo jàkkaarloog ñii te yow yaa di fay au moins ngay leen chef d'accord président mu ngi fa xaar ma xaar su président demee nga duggul sa 60 bagg eau de javel bagg eau de javel yi nga doon yóbbu ko d'accord su dee ni li nga xamante ne moom moo aju ci xiifal moom forme de lute la pour contester li nga jàpp ne dañ ko teg sa kaw te jaaduwul su ko defee wàcc na. ça lui permettra de faire un régime comme waa Cœur brisé la mais gis nga euh, Pa Ousmane <laughs> pour être beaucoup plus sérieuse gis nga je sais pas si cette information est vérifiée wala mm. parce que euh, Ngoone liir na ko léegi waaye liiraan na beneen publication bi nga xamante ni même nit ki moo ko wax. waaw ça veut dire que ñoom dañoo incohérent en fait même pour mettre un scénario en place ils ont du mal à à le faire ci sama gis-gis parce que ni ki biig mënoo génn def benn publication ne dama ko doon yóbbul lekk mu may ma lekk après tey nga bëgg a xëyaat bind ne da nekk dafa nekk en grève de la faim ban lañ ci war a jàpp bu démb bi wala bu tey oui mais Ousmane Sonko barki Dembo Ndiaye ca Dakar Arena bu nettalee ni moom bi mu nekkee ci grève de la faim yu mel noonu duñ ko daroon génnee mu gën koo garaawal mel ni da koo tegoon ci stratégie. mais depuis lundi la bind depuis lundi la commencé grève de la faim loolu la bind. bu duggee ci stratégie nag. waaw ah, mais stra non. ça ne passe pas fii ñun dofuñu. nee naa la même pour mettre un scénario en place ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas xaw ma na laa mën a waxee. Hmm. ils ont du mal à mettre boo xamante ne sénégalais yi mun nañ koo gobe grève de la faim bu fekkente ne ñoom ñaar nekk na benn euh, deal wala waxtaan boo xamante ni ñoom dañ ko bëggoon a mettre en place pour gëmloo ko sénégalais yi. Mm. balaa moo bind publication démbam bi na ko xoolaa parce que man en tout cas bi ma jotee information ñaari j'ai du mal à savoir ban laa ci war a jàpp. Mm. ban moo war a nekk tey bu crédible bi nga xamante ni sénégalais yi dinañ ko gëm waaye daal bu dee da koy def tamit bon seule fii moom. affaire yi yox jëli ko la de du da toog rek di ko am de du tamit da ngay mettre <laughs> sonko sonkolu pour mel ni sonko non non non fii da nga koy ñafe. oui donc. Euh, bu fekkee da koy def le 30 est-ce que réponse mooy ñoom dañuy non waa Pastef bu fekkente ne nee nañ dañuy dem meeting le 30. Hmm. Euh, je n'y vois rien de mal. parce que campagne bi dafay déclaration des uns et des autres bi dafay ubbi c'est pas parce que Bougane Gueye Dany a été à Tamba. Hmm. que waa Pastef amuñ droit dem Tamba dem meeting campagne bi dafay ubbi. nekkul ni ñoom ñoo toog jékki-jékki rek am envi dem campagne à Tamba bu fekkonte ni loolu la mun nañ ne provocation wala loolu. Hmm. mais comme nag dañuy campagne te dañoo am un candidat bu tudd Zahra. bu nekkee foofu ca Tamba c'est très normal ñu dem def seen campagne foofu noonu donc euh, je pense que bu fekkente ne jàmm rek moo tax a jóg waa Bougane Gueye Dany hmm. euh, ku ne mën nga def sa yëf procès bi mën na am fii ñee tamit def seen campagne sans pour autant benn Euh, violence wala benn débordement am ci donc euh, ku ci nekk na demee ak sa xel rek. Hmm. focus ci li nga nekk yaakaaruma ne débordement mën na cee am. mën na cee am hmm. oui maman. xiifal. bugaan ci bugaan. dina sànq boppam rek ci ci ci ci ci loo xam ne nii amul benn sens. parce que man dama gëm ne nit. parce que il faut itam ñu bàyyi xel ci contexte Ousmane Sonko dañ ko tooñ. c'est ça réalité dañ koo fekk këram jàpp ko. ne jàppe nañ ko pour vol vol de de téléphone par la suite ñu dem corser dossier bi jàpp ko euh, tëj ko ci kaso bi kooku dañ koo tooñ xam nga Ousmane Sonko jamono bi euh, mbir yi di am fu mu toll dafa am benn wax bu ma benn kilifa mu sa wax mu ne ma bu fekkee ne moom ci dëgg rek la nekk bu fekkee muy def raxu si daraay tappale dina si am ndam je pense que loolu c'est important mooy tey li ngay def est que si dëgg nga nekk dañuy wax naan coono du réer boroomam coono hmm. mais man dama gëm ne Bougane moo nara am coono boo xam ne daf koy réer parce que li ngay def yëpp ça du du servir à rien parce que nekkoo si dëgg tout simplement c'est ça le problème aka mu doon neex rek nga nekk ci li nga war a nekk dem vers les sénégalais def sa ay proposition di wax ci dëgg di dox ci dëgg ba bis ñëw ñu jëm laa daay jaay doole su boobaa gis nga ces patriotes yi di xataraayu sur l'affaire Samba Ndiaye ñooy xëy taxaw ne non ñoo bañ hmm. parce que bi ñuy fal ñuy faluñu leew ñu ne fi di jaay doole kenn mais malheureusement da ngaa wàcc yoon et c'est le problème bëgg a méngale cette situation là ak li Ousmane Sonko doon dund bokkul su dee moom dañ ko da doon def altercation ak force de l'ordre yi nga ne par force da war a def altercation ak force de l'ordre yi bokkul biñ ko arrêté en deux mille vingt et ñu bëri dañ jàppoon ne dañ ko monote parce que loxo yi ci ginnaawam la ko teg. bi ko bi ko gars yi mais mës nga gis gis nga ku saaga barki démb mais mës ngaa gis ci làmmiñu Ousmane Sonko mu wax ba saaga. et li ñu ko teg kenn su ko teg kenn ci biir réew mi donc parfois ndeysaan da ngay dangay ngay dugg ci loo xamante ne dangay ngay sànq maanaam grève de fin pour lan ci loo xam ne nii yow dañ la jàppee loo xam ne yow yaa ko def te loo mënoon éviter la c'était pas hmm. compliqué benn deuxièmement da nga ne yow yow da ngay méngale sa bopp ak Sonko mais colonel wax na ko léegi caporal soo soo Ousmane Sonko bu ñu ko bëggaan a jàpp balaa ñu koo jàpp dañuy jàpp ñu bari ci ñoom soo ko mën jàpp Ousmane Sonko wala boo ko jàppee bañ nañ ba si département yi yow mais réew mi daanaka département yi fi ne yëpp dañoo dem coordonnateur départementaux yi nekk ci biir yëpp lañ jàppatee parce que xam nañ ne dafa am ñoo xamante ne nii il faut organiser une résistance fépp ci département yi ci Sénégal yow ñu jàpp la kan lañ jàpp kenn tranquillement nit ñi dem tëdd seen ay kër di nelaw après mais yéene wuñ la ko boo grève de la faim après qu'est-ce qui va se mais nit ñi dañuy dem tëdd kër yi tranquillement ñiy xëy liggéey xëy liggéey donc il faut que parfois itam nga am benn intelligence man du ma comprendre pourquoi nga bëgg a lor sa bopp sànq sa bopp ci loo xam ne doo si gagné dara dara dara benn gain politique doo ko si am parce que tout simplement les gens vont se dire kii nekkul si dëgg xoolal tey li ñu ko jàppee rek koo laaj mu ne la moom li mu defaru ko woon a def et c'est loolu mooy def différence bi mooy tey jii est-ce que suñ ne jàpp nañ Bougane dañ naan ah vraiment wax dëgg yàlla tooñ ngeen ko pour man foofu la mbir mi mooy nga nekk ci li nga war a nekk def sa politique tranquillement actuellement mais il y amul benn pression bu ñuy teg ci kaw homme politique ci biir réew mi te li xew keroog Tambacounda wane na ko. oui te war a xewaat le 30. mais amoo ci njàqare. moom même man déclaration yi am des uns et autres su fekkee ni ku ne dëggal na boppam. oui ci fi ñu jëm euh, sànq caporal bu ngi wax sax même sécurité candidat yi maa ngi gis Abdoulaye John depuis Gambie mu koy wax looloo fa am. mooy sécurité candidat yi c'est assuré. par Ousmane dafa am loo xam ne nag am loo xam ne nag neexul quoi. est-ce que duñu yegg ci loolu ñu désarmer. homme politique yi nga xamante ni loolu loolu loolu jàpp naa ne ñu leen di préposer à la sécurité. oui loolu jàpp naa ne takk der yi nga xam ne loolu moom mooy seen rôle dinañ ci am taxawaay bu am solo rawatina ministère de l'intérieur nga xam ne nañu bàyyi xel que dañoo am ministre boo xamante ni ministre bu neutre la et loolu dafa war a changer totalement li nga xam ne moom moo di doon bi hmm. mooy ñoom dinañ organiser wu xool naka la ñu mën a def te ba euh, campagne bi et puis man je trouve pas lan mooy sensu ay topp nit yi si yenn wax yu ñuy wax mais le problème mooy pansement ma mënoo comprendre ma nekk si opposition ki nekk pouvoir yore doole jàpp la du leen leen du leen li ba nga xëy nekk pouvoir hmm. nga nekk pouvoir mu mel ni ñi nekk ci opposition dañ la bëgg a néewal doole di la menacer naan la ay dama lay génneel arme ak mais arme xanaa du fi ñu koy wutijee la ko ñëpp di wutijee suñ demee ci logique boobu sa dire il faut il faut il faut ñu dem ak discipline un Barthélémy Dias buy xëy suba man loo si wax rek ndekk am na loo ci bàyyi démb laa ko doon dégluwaat mais le monsieur c'est comme si moom dañ ko ne yow benn chef de bande nga ci biir dëkk bi yow yaa ëpp fit yow yaa a sadik nit ñi moo xew lan nga am lu nit ñi amul. non mais benn nit benn nit ci biir dëkk bi soo waxee benn ñaar pistolet benn ñaar noo suñ tasee fii ku ñëw sama buntu kër mais nit ñi dañuy dañuy tranquillement nit ñi fu ñu bëgg a dem dañ fa war a dem buntu kër Ousmane Sonko buntu kër mais dañuy dem campagne yi ji. mais hmm. dangay wax mel ni yow yaa moom réew mi wala yow da ngaa ëpp doole nit ñi wala yow da dafa am nit ñu la topp ñu la topp mais ñaata nit ñoo topp Barthélémy Dias donc faut qu'on soit sérieux hmm. loolu bu ñu ko toppee mën nañu yóbbu foo xamante ne du baax li gën nag mooy tey ji man su ma doon conseiller tey ñu nekk si régime bi je leur dirais euh, wala le Pastef dama leen wax ne bu ñu topp ñii ci logique boobu ñu nekk parce que ñii dañu nekk depuis le début ci logique bu xool naka la ñu mën a def ba saboter mbir yi sabotage lépp lu ñu def rek sabotage moom moo ko lal